Euh, ñu ñëwaat ci leneen. waaw bërki démb gis nañ nga joxe avance. waaw avance yi nga joxe mu doxoon ci diggante ñaari xale. yoo xamante ne tey buñ doon noté. Mm-hmm. meilleur combat espoir yi. Mm-hmm. wala meilleur espoir ci ci ci année bi. ñaari xale yooyu mënuñu cee génn. Mm, muy caatu daaw dafa yi di wax caatu daaw dafa ak kaaw. waaw journaux yaa ngi wax ne c'est les meilleurs waaw. waaw ah, ñoom ay meilleur lañ. Ah, loolu lañ bokk <laughs> ci meilleur yi waaw ci meilleur yi lañ bokk <laughs> ci fukk ci fukk meilleur léegi mu amoon ci tournoi bu ñu doon yëngu. ñu jékki-jékki tournoi bi gis ñaari xale yooyu dem final. ok final bi promoteur bi tëggu ko ñu jékki-jékki gis Jax décroché combat boobu. Hmm. bëgg nañu xam lan moo war a nga décroché combat boobu avant combat bi di taxaw. Hmm. wala da nga indi tournoi wala da indi combat. finalu hmm. tournoi bi wala combat. man mënuma indi tournoi da nga dégg Jax tournoi. déedéet. ah kon bu ma ne andil am tournoi moom moo am tournoi man aw ma tournoi. noonu la demee ñaari mbër yooyu ñoo final woon. voilà ñooñu ñoo final ci tournoi hmm. li mu tuddee tournoi. mais tournoi boobu li si nekk. Hmm. li mu tuddee tournoi du tournoi. parce que tournoi dafa am nu ñu koy tëggee. te hmm. moom dafa teggi charte yi bi muy tëgg tournoi. loolu moo andi lii yëpp. du leneen. nan la teggee charte yi. tournoi boo koy tëgg dangay dem CNG ne bëgg naa tëgg tournoi. Hmm. mbër ta sàngam mbër sàngam mbër sàngam mbër sàngam mbër sàngam yi nekk écurie nii nii nii nii ñi ñooy seen manager ñoom laa décidé boole ci benn tournoi. Hmm. <laughs> ñu defale li ñuy wax cahier des charges ñu bind la règlement bi ñoom CNG. Hmm. ne nii ak nii la temps de journée la nii ak nii ñooy def tirage arbitre yi validé ñu nga fay su ma li nga war a fay à peu près ay cent cinquante mille la. ñu validé ko. Mm-hmm. nga am sa cahier cahier de charge comme livre bële. Mm-hmm. jox bër bu ne bosam ak manager am téye sa bos CNG téye seen bos. Mm-hmm. ñu ne war na démarrer tel jour ñu démarrer. fay nga say yëf léegi nag li si des mooy say avance ak yooyu yaa koy gérer di fay joxe say avance dem régulariser say combat tëgg sa journée. ñu koy topp ba mu egg. tant que eggul. sa mbër yooyu nga dugal ci sa tournoi ñu jël engagement dañ koy bëre. vis-à-vis du CNG mënuñu bëreel kenn ci àdduna. Mm-hmm. loolu la Idaaly deful defu ko. Mm-hmm. dafa jël ay booy rek yu mu xam wala yu mu yaakaar di leen boole di joxe avance di tëgg tuddee ko tournoi moom. tuddee ko tournoi mais combat nommé lay doon quoi. parce que bu mu tëgg rek. day day day jox li mu warloo mbër bi daal. non weddi wu ma lool. Mm-hmm. waxaale nag ay mbërëm. ñoom d' accord nañ ko nekk wóor na ne ci saison bi di nga bëre ñeenti yoon avantage la ci mbër. du dëgg. loolu nga am sa benn combat taxaw di xalaat ku ma tëggaat mhm. bu ñu ne la dugal nañ la si tournoi da naan ah au moins bi naa si bëri quatre fois ça m'a quatre galas de plus si mhm. sama si sama palmarès mhm. loolu avantage yu mbër la moom nag joué ci loolu def ay yëfam organiser ay booyam di tëgg ay yëfam bi mu tëggee ba covid bi ñëw yëf yi arrêté bu covid ñëwuloon dina ko eggali bu fekkoon covid amul da koy eggali mais covid bi moo baare yëfam muy cas de force majeure egg si dal Hmm. organiser wul sécuriser wul yëfam événement loolu moo ko yàqal. léegi nag bi mu ñëwee ba Covid am man yàlla xam na ne seetumaa benn benn match ci benn gala. Hmm. ci ci tournoi am. Hmm. seetaanuma ci benn su ma waxee la yàlla rek. toog naa fii ñu woo ma téléphone. ne ma eh am na ñaari booy yu ñu coow ci dëkk bi Kaaw Gourdin ak Kaaw Daouda Fall font partie des meilleurs espoirs est que doo leen tëgg. ma ne leen ñaata la cachet bi ñu discuter ba d'accord ma joxe sama avance. dégg na ñuy wax naan finaalu idaali finaal ma ne finaalu kan idaali ma ne ko ci naka ñi ne tournoi man leen attendez je regrette y a pas de tournoi. Mm-hmm. moo organiser ay yëfam mais organiser wul tournoi un tournoi dafa am noo koy organiser man Jax production su ma doon organiser tournoi kenn du jël sama mbër. kon xale yi bi ngay waxtaan ak ñoom amul woon benn jafe-jafe baat tontu la woon. non man du ma xale yi sax man amul lu xale yi mbër booy wax ak doo wax ak mbër. Mm-hmm. manager ngay waxal moom nga war a waxal. manager moo lay proposer mbër nga ne mbër bi intéressé ma wax ak manager bi. Mhm. fay ma temps bu ma fay temps sama yoon nekkul ci mbër man man du ma wax ak mbër. du ma woo mbër naan kaan kaay ma tëggal a combat manager bi ko yor. la mhm. règlement bi moom laay waxal. bu ñu waxee temps la bëri naa temps de combat am naa temps sama dernier combat lii la am dama daanoon wala dañ ma daan et ñu négocier ba ñu jubboo. Mhm. bu ñu jubboo ci cadre man la jubboo nañ ñu ne ma bi jubboo nañ mu ne ma ne ñëw leen. ma joxe la avance. Hmm. yàlla dafa def nag ñaari mbër yooyu yëpp benn benn manager lañ am. ñoom ñaari mbër yëpp ñoo bokk. benn ñoo bokk benn manager xam nga dafa gën a mais président est-ce que loolu tamit jaadu na. benn ah. ñaari mbër. waaw benn manager. manager bu nekk ñaata mbër nga mais yor ñaari mbër yoo xam ne dañuy compétir. ñoo war a laal dama ne am na manager yu yor cinquante mbër. loolu tamit CNG war nañ ko xoolaat. loolu CNG mënu ci dara. lu tax mbër yi dañu bari ku nekk day wut manager am. manager yi mën nañ ci dal yàlla def comme ni nga ko waxee. yi hmm. daal di d' ak ñoom dugal leen si tournoi. gis na ne ils sont bons mu jël leen mu dal ak mu mu tombé mu dal si ñaari manag benn manager bu leen moom. munoon nga nekk manager man ma nekk manager ku nekk am sa mbër ñoo dugal benn mbër mais mun nga yow ci sa mbër yi nga yor. Hmm. ñeenti sa ñeenti mbër dugg ci benn tournoi parce que ñoo tolloo. Hmm. nekk ay ndaanaan ça arrive.